toog fii rek. non yow dangay yaay dangay ca baxal xam nga boo bëggee wax munoo wax boo gisee ku la li nga war a wax sa xol day feex yàlla na nga hmm? baax a baax. chéri Coro maa ngi chéri Coro. <laughs> donc am contenté tamit pour teew fi c'est vrai que da ngeen may yeel matin bi. oui. <laughs> te je suis matinal mais bon. Mm. maa ngi déglu maa ngi suivre débat bi et c'est très intéressant mm-hmm. man nag dama amoon lo presse bi moom xam naa ne bu sujet bi romboon te waxuma ci mm-hmm. du baax ci man mm-hmm. man mine sa rien ça fait je je me prétends pas journaliste mais ça fait quinze ans je travaille dans le milieu euh, de la communication xam nga le problème journalistes yi ak tout ce qui tourne autour de la presse le problème déjà. ci ñoom la nekk. avant état bi di ñëw moo wax la ne état bi. de Abdoulaye Wade à Macky euh, ñëw ba ci Diomaye naka la ñu yàqee la presse. la la la presse n'a pas su se reconstruire. ou bien defaraat face à la à l'avancée ou bien. à l'avancée de de la nouvelle technologie. lu ci gën a bëri surtout la presse écrite. Mm-hmm. bien sûr. si suñu suñu defee recule de de de quinze ans. Mm-hmm. Uh-huh. les années deux mille. Mm-hmm. est-ce que xam nga l'observateur. Mm. je dis l'observateur parce que euh, deux mille sax c'était c'était c'était euh, bi ñoom Moustapha Diop nekkoon. nu mu uh-huh. tuddati euh, pop. Mm. après pop. pop mooy nekkoon presse bi nga xam ne quotidien bi nga xamante ni. lim daan tiire moo ëpp. Mm. après pop. <laughs> l'observateur <laughs> l'observateur <laughs> l'observateur daan na tiire. Mm. l'observateur daan na tiire ba romb événement su amee soixante dix mille quatre vingt cinquante mille à soixante dix mille. Mm-hmm. l'observateur da daan tiire par jour. Mm-hmm. par jour laa la wax. Mm-hmm. l'observateur daan na ko tiire. léegi avec euh, bi internet ñëwee lecteur bi nga xamante ni papier la daan jënd di lire mhm. jëndatul papier pour liir mhm. la presse devait vraiment se recréer pour permettre ki nga xamante ni papier la doon jënd mhm. muy papier la doon jënd mu mën di lire par d'autres voies. muy lire articles yi. Mhm. te du jënd presse. Mhm. du jënd du jënd presse en papier. du jënd journal bi. Mhm. mais léegi problème bi c'est beaucoup plus grave que ça. oui. Euh, euh, euh, mon ami man ñaata quotidien moo am déjà ñaata quotidien moo am. est-ce que du 55. 49 mooy génn ak ci kii. mooy génn. mais li gën a grave mooy lan. non mais loolu sénégalais est-ce que xaw dama ne mais est-ce que ñii ñoo ngi ciy réfléchir. ouais mais y a des quotidiens qui mm-hmm. yooyu ñu ne ñoo officiellement parce que en fait c'était 45 45 la woon dernier recensement bi 45 la woon. Mm-hmm. officiel. Mm-hmm. am na ñaar yu génnaat. mais officiel est-ce que xam ngeen ne am na quotidien xam ne amul. existé wul ça n'existe pas du tout. maanaam je te dis. li ñu a def mooy. en version papier numérique la ñu. dañ koy tiir en version papier en version papier. oui dafay du du am. Mm-hmm. mais d'accord journaliste du sax du journal euh, presse en papier le presse du léegi rek en version papier. Mm-hmm. mais l'article doit exister. waaw man su ma googliser l'article article bi dafa war a am <laughs> maanaam l'article n'est même pas écrit googliser ko. tu prends un la, la revue de presse nga gis une bi ñu bindal la ci une bi ne la Dieyna Bamba a été nommé ministre hier tel tel tel sous la pression de tel mais nga xool article tu veux lire l'article ah, journal bi amul en version papier mais nga dem nga googliser ko journal bi article boobu amul ça que l'article a été payé yow laa yëpp yow laa jàkkaar la par Jeena Bamba mhm. pour pouvoir passer en revue de presse su rombee revue de presse boobu noonu mais article bi amul mhm. amul amul l'article n'a pas été écrit def leen def leen def leen def si nga soo recensé demal ci vende le vendeur de journaux mhm. journaux yi ngay fekk foofu noonu du ñu dépassé du ñu du ñu dépassé vingt cinq matuñu ko sax nag pour ne pas pour exagérer du ñu dépassé vingt cinq léegi te dëkk boo xam ne quotidiens yi toll nañ ci. 47 47. Uh-huh. mais loolu su amee. Mm-hmm. ñu jël 45 rek comme recensement bu mujj bi 45 la woon quotidiens ñu jël 45. mais 20 yi des anañu. Mm-hmm. dañ la naan la c'est en version. PDF. Euh, euh, mm-hmm. mais bu nee en version PDF PDF. naka nga koy amee en version PDF da koy jënd mais tamit lool la et foofu la état bi war a intervenir. man j'avais un un projet. gis nga. man je suis sur le digital. il faut que état suñu état yi tamit la presse elle doit être accompagnée. loolu moom lu la nit wax gis nga tuer cette presse la ce sera tellement dangereux pour ce gouvernement. parce que la nature a horreur du vide. parce que il faut que mu am leneen lu fa nekk ku ko weddi laajal Macky Sall ba mu rayee opposant opposant yëpp opposant boo xamante ni mënul ci moom dara la ko yàlla indil. on ne tue pas sa presse. parce la compagne la presse on l'accompagne. le gouvernement a intérêt à accompagner la presse. Mm-hmm. Uh-huh. accompagner la presse mooy lan sànq Adama Fall wax na ko moo tax bëggoon naa ko mu fekk ko Adama Fall wax na ko que ne secteur secteur de la presse nombre bi muy emploi c'est rare man je suis dans le secteur parfois pour nga gis étudiant bu libre génn yoo xam ne formation la def journaliste la ki libre sax dafa jafe. Mm-hmm. bu am niveau dafa def jafe. léegi nag secteur buy. buy recruter employer autant de jeunes kenn waru ko négliger kenn amul droit négliger secteur boobu noonu. Mm-hmm. léegi imagine toi yow moo tax mën na la journaliste yi ci boppam ñoom dañoo war a def seen fóotum biir journaliste yi boppam dañoo war a def seen fóotum biir c'est quoi le problème Ablaye Wade dafa ñëw ak ay quotidien am Ablaye Wade dem. Mm-hmm. bu leen fàtte le quotidien soppi. Uh-huh. soppi. <laughs> non bëri na euh, Farba Senghor bi moo ko doon gérer. Mm-hmm. bëri na Abdoulaye Wade est venu avec sa presse. mu dem. mais pourquoi quotidien yu bëri nii ba fi Macky Sall nekkee amuñu lépp li jëy naa wax c'est vrai. Uh-huh. ak ah, problème bi yàgg na. man xam naa ministre bu amoon presse. te doguma la même ak bëri am na ñoo xam ne ci parti la bokk ku ci xëy da nga ci yor sa une benn. waaw wax lii de. groupe lukat yi toog ci plateau yi bu ñu xëy yor seen une. yow nga xam ko gis ku mu leer na ne kii politicien la saa bu xëyee jël à la une boppam taf ak seen kanam yu ñaaw yooyu teg ko ci seen une bopp buñ paree ñëw di nekk di di mais maa la wax lenn <laughs> pourquoi mais bien parce que déjà nañu def benn benn benn benn analyse très scientifique oui Sénégalais yi daan jënd euh, journal mm. léegi ñu ngi jënd mm. comment ça se fait que Macky trop moins de quatre mois mm-hmm. après mu cri crise bi am c'est parce que li Ablaye Wade defoon moom la Macky Sall def. y a y une partie de la presse qui était entretenue. Mm. par l'État. te Diomaye ak Sonko xam nañu ñu yor une. te man xam naa du ma du personnaliser. xam nañu ko mais en offline ma wax la ne journal tel. ak mm. journal tel. Mm-hmm. mais mu sa day toog dañuy toog 3 mois 4 mois du ñu du ñu tirer en version papier te articles yi amul te mine de rien. Mm-hmm. ñooñu noonu pourquoi ñu dem mais. ñëpp xam nañ loolu on est dans le milieu. c'est c'est-à-dire comment ça se fait une télévision. Mmh. une télévision déglu naa déglu naa euh, le le le comment dirais-je l'actionnaire principal. Mm-hmm. mu ne def naa ci quatre millions. quatre milliards. quatre milliards la wax sans que euh, top dafay expliquer lu graaw mais le dumping. Mm-hmm. mais cette télévision là elle a fait du dumping le dumping c'est quoi. Mm-hmm. mooy tu surpayes les les journalistes ou bien les employés pour ñu ñëw ci yow. ñoo xamante ni la concurrence du ko antan mais le problème mooy su fekkee su fekkee la réalité économique. Mm. antanul budget boobu noonu antanul finance yooyu noonu. Mm. mais après c'est un problème. bien sûr mooy lan ki ko doon fay ki doon joxe xaalis. bu mm. génnatul. parce que parce que ñun xam nañ yaa day am na presse boo xamante ni mais état bi ci boppam moo doon fay employé. am na fi presse ci boppam état bi ci boppam moo doon fay employé état bi ci boppam. Hmm. loolu ça c'est passé du temps de de de de pour bañ a tooñ bi du du du mais sa s'est passé du temps de Wade ça s'est passé du temps de. Macky euh, Macky Sall. ils ont fait du il y a il y a une partie de la presse nga créé sa entreprise de presse tu fais du dumping jëwrin euh, Sénégal set ma ko doon fay euh, cinq cent mille mm-hmm. man je vous paye trois millions de francs CFA. Mm-hmm. mais est-ce que finance bi. am na ko recrutement massif bu amoon ca télé boobu rek jóge ca télé ba mais mais ça c'est du dumping. yow le dumping le dumping le dumping interdit. baaxul baaxul. mais benn système am na ci revue de presse yi bu dee da ngaa génnee sa une yow woowat ki koy def ngeen tegoo loxo. mais dama ne la mais c'est normal xam nga dama la loolu. parce que bu fekkee presse bi amul en version en version. Euh, amul en version. numérique amul. Mm-hmm. Mm-hmm. je parle pas amul PDF en version numérique sax amul maanaam l' article n'a pas été vendu. lan moo war a tax yow nga créer article bu nga nga nga nga nga bind article boobu noonu. Mm-hmm. juste pour passer en revue de presse. d' accord mais comment faire tey pour euh, loolu système boobu ñu que ñu bëri ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma nguur gi fii nekk ndax. nee mais l' état doit accompagner mais l' mm. bi. du tax état état nekk si jàmm. Mhm. la nature a horreur du vide. dëgg la de. tu tues cette presse. Mhm. quelque chose non contrôlé beaucoup plus dangereux. Mhm. que la que la presse là. va voir le jour. parce que problème mooy li ma la wax. je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. ba mu réduire réduire ce ce que ce que la vieille classe appelle l'opposition démocratique. mais ils ont eu une un opposant boo xamante ni. Mhm. bokk ñëlee ko a sedd téeméer junni yoon. Mhm. Mhm. Macky Sall Macky Sall. amoon opposition bu bu bu bu bi bi laay Wade amoon moo moo gën. bi opposition bi Ablaye parce que amoon na ay ay ay ay. ay mag magi démb ay ay waaw. mais bii ay xale fi mais ñooñu am nañ am nañ loo xamante ni mais ñii dañuy ñëw. di tirer à tout bout de son may ñu ko dara mais xool fi mu mujj. nga ne euh, Maxou. rapidement bii ni mu jàllee du nangu loolu am stratégiquement politique. c'est-à-dire comment il a fait pour exister pour arriver au pouvoir. su accéder au pouvoir moyens yi mu utiliser woon pour accéder au pouvoir du nangu ma ko utiliser ko Adama loolu laa wax Adama. xam nga lu gën a garaaw. mooy moom laa wax du nangu ma ko utiliser ko. mais lu mu def day bayonner presse bi. waaw moom laa la wax parce que avec l'avènement de Ousmane Sonko ñaata presse en ligne ñoo fi créé wu. ah da a wax ñooñu Ousmane. j'ai dit avec l' avènement non je ne parle pas uh-huh. ñaata site ñoo judd. non bëri na. énorme non non c'est vrai parce que en fait sujet boo xam ne polémique non qui attirait le le le le Sénégalais lambda ñëpp ko doon c'est-à-dire y ce qu'on appelle en journalisme avoir de la matière. voilà y avait de la matière loo xam ne sujet boo xam ne un sujet brûlant mais je te dis une chose. Mm-hmm. mais euh, Adama mais rey presse bi. dama ne rey presse bi ci boppam loolu ce serait très vraiment dangereux et je crois pas sincèrement mhm. honnêtement mhm. que je suppose que ne du loolu moo leen tax a jóg mais soo reyee presse bi mais ay live rek yeneen ñeneen ñoo dugg mën na bañ a doon ñeneen mën na gën a garaaw loolu xam nga presse quoi qu'on peut dire man je d'accord mhm. il faut réguler il faut il faut réguler mais pour man gis nga quand on a introduit la carte de boobu la presse bi yàqu parce que xam nga tax mhm. parce que y a des yoo xamante ni une mhm. commission boo xamante ni mooy sélectionné ñii duñ leen jox ñii duñ leen jox parce que c'est ça parce que pour le bon vouloir de x ou y mhm. yow duñ leen jox bëri na ñoo xamante ni dem na ñu ne leen duñ leen jox mais quand quand la presse quand l'état dit que Serigne journaliste ah, mais attention quand l'état dit que Serigne Saliou Gueye n'est journaliste ñu jël koo xamante ni xam nga en France pour être journaliste lii la condition la laaj xam nga benn condition la laaj. Hmm. nga def activité journalisme. nga ci nga ci nga ciy liggéey. respect de la déontologie ñu ne la la détention de la carte de la presse n'est pas une condition sine qua non hmm. pour être journaliste hmm. uh-huh. baax na nag parce que il faut que ñu leen reconnaître wax dëgg yàlla uh-huh. mais imaginez loolu dafa mënul nekk sax am na nu ñuy bëgg topp maa ngi koy door a maa dañuy déggante souvent c'est vrai maa ngi lay door a seet dañuy déggante souvent mais toog am na ñu fi jàpp c'est parce que amuñu carte de presse eh, eh, nationale moo tax ñu jàpp li graaw ma ne moom comme on est dans le même secteur xam na bu baax ah. ñoo bokk ci li li ñuy nekk li ñuy yëngu <laughs> mais li gën a graaw mooy lan c'est grave ça mais attention hmm. comment l'état peut faire pour réguler les réseaux sociaux là c'est impossible impossible mënu ko l'état Macky Sall ne l'a pas réussi. Mhm. Abdoulaye Wade ne l'a pas réussi Ousmane Sonko ne va pas le réussir. du ko réussir impossible. impossible qu'est-ce que tu n'a pas frontière. amul mm-hmm. frontière moomuñu ko sax. c'est-à-dire euh, toog nii. bu ko état état bi interdire mu diffuser euh, à à euh, Sénégal mm-hmm. mais mën na dem mën na dem Mali mën na dem États-Unis mën na dem mm-hmm. amul frontière fu mu dem mën na continuer di diffuser amul nga mën nag mooy accompagner c'est-à-dire <laughs> pour te dire eh. le nouveau code de la presse. voilà xam nga les entreprises de presse en ligne jëluñu leen en compte. man y' a beaucoup de combats yoo ah. xam ne dama ko mën a en uh-huh. bi ñuy def le nouveau code de la presse dama am sens su participer si ni ñu ko rédiger et tout ça am ñoo xamante ni <laughs> maa leen doon tooñ na leen comme internet boo jaaxal ni bu extranet ñëwee xaw ma fan la Sénégal jëm. Uh-huh. mooy que ni bi ñuy def le nouveau code de la presse boobu jamono. Mm. jamono ji ñu amoon problème bi ñu amoon mooy les commentaires sur des articles sur Facebook. Mhm. <laughs> mooy que ni boo publier article si suuf gars yi ñëw lii ba ñu bëggoon bind ci le nouveau code de la presse mooy même bu doon Sénégal 7 dafa publier un article sur telle personne. benn euh, Adama Fall ñëwee commenté saaga waajooju c'est Sénégal 7 qui doit répondre ah. magistrat bi na leen loolu xalaatuñu ko def ci mhm. mbir yi <laughs> loolu c'est exposé et dans le nouveau code de la presse également dañu exposé journaliste yu bëree bëree bëri xam nga en cas de diffamation par exemple ci euh, le nouveau code de la presse mais le journaliste n'est pas protégé. bien sûr ah, bien que y a l'article quand c'est ce mm. qui défend les journalistes si secret que yooyu noonu. mais li nga xamante ni moom moo ci am te grave. Mm. mooy que ni ni ñu tëralee code bi amul benn yoon. benn liggéey bu ñu def pour la presse en ligne aujourd'hui li ñu doon def yëpp ci presse écrite bi la mm-hmm. ak léegi loolu ça donnait l'impression de mm-hmm. voir comment ñoom ni ñu bëggoon a mm-hmm. limiter donc la presse écrite ak yeneen gis des bien sûr Adama Fall yaa ngi wax euh, site yu mm. bëri gars yi dañ ko créé sur l'événement Ousmane Sonko ay site de c'est des chaînes YouTube. lii c'est des chaînes YouTube quoi. voilà c'est des chaînes YouTube quoi. entreprise man pour man dañu war a définir c'est quoi une entreprise de presse en ligne. Mm-hmm. Mm-hmm. ak une chaîne YouTube voilà une chaîne YouTube. ak am compte TikTok ak voilà mm-hmm. mais Sénégal 7 bu nga xamante ni dafa am www.senegal7.com. nga dem nga xam ne c'est des journalistes yu am ah rédaction di écrire des articles yu nga xamante ni dañ koy def ci normes yi war. Mm. am une chaîne YouTube bu nga xamante ni dañ fay def ay débat yu nga xamante dañuy respecter éthique ak déontologie am yeneen ak yeneen plateforme yu nga xamante ni c'est pour promouvoir c'est di bokkul ak benn waay bu nga xamante ni day dégg na Adama Fall li na rek yoonam nekkul ci recoupement yokk ñëw rek amplifier affaire bi pum dóor te loolu moom mooy gën a viral. Mm. après nga ne la presse en ligne man mm. pour man. mi ngoog mi ngoog non man mm. foofu bi mm-hmm. organisation bi pour les chaînes YouTube dina jafe mais nii kay décharge lañ leen jox. sur les réformes man li ma jàpp mooy code de la presse bii dañ ko war a réformer. mi mettre ko à jour. Mhm. pour nit ñi mën a sécuriser les journalistes. parce que les journalistes aussi sont trop exposés. par rapport à leur métier. Mhm, rapidement. du dëgg. Mhm. maintenant nag protéger aussi les maisons de presse. parce que gis nga euh, topp. li ngay dund yow yaa ko xam. li ngay dund. yow yaa ko xam pour gérer sa personnel. li ngay dund yow yaa ko xam. donc nañu organiser mbir bi pour que les maisons de presse puissent vivre publicité yi aussi hmm. saa yi nañu prioriser man dama koy wax man man dama koy wax am lenn rek laa bëgg rapidement man de wallaay je demande à l'état hmm. solennellement fii laa ko waxee hmm. avec cette presse écrite là même y a, y il faut que ñu rapproché wu ci ñi nga xamante ni parce que man genre je parlais avec euh, koo xamante ni il fait partie de l'ancien régime ma ne ko man quand j'ai ministre le ministre de la ñu bind Macky Sall le gouvernement de Macky Sall. ñu bind le ministre de la communication et de l' économie numérique dama tàccu. parce que xam nga lu tax. adduna bi moo toll ci économie numérique malheureusement ka ko géré woon xamu ci dara tur bi baax na. parce que économie numérique la ñuy wax. mais gis nga lii. Adama Fall sànq dafa wax ne ñi personnel bi la presse en ligne di di employé. mais je te parle que ne ñun. Sénégal war nañu yegg ci fenn foo xamante ni mais chômage on parle xam sànq ne nañ ñi génn ñi def école journalisme bi génn ak so ñi ci chômé bëriwul mm-hmm. mais ñun Sénégal avec les services digitaux mm-hmm. il faut former cette jeunesse là parce que mm-hmm. normalement dans un état normal un étudiant ne doit pas chômer mmh. un bi ci boppam mais état bi état amul sax état bi que ça soit Abdou Abdoulaye Wade Abdou ba Macky Sall ba Ousmane Sonko ko y a aucune il y a aucun pas qui a été euh, ou bien fait pour que ces étudiants là parce que nit ki xam-xam léegi àddina bi fu mu toll xam-xam. Mm-hmm. comme la. Mm-hmm. un étudiant bu amul xam-xam amul ci àdduna. dëgg la Sénégal boo demee le plus nul des étudiants am na xam-xam. Mm-hmm. boo xamante ni mën na ko jaay mais xam-xam dañ koy jaay. waaw baax na suñu étudiants soit nag grand grand xam-xam bu élève le plus nul des étudiants mën na jàngal élève sem 2 mhm. le plus nul étudiant université ah. les les les les les deux cent mille étudiants yi ya fa nekk le plus nul ki jël naare mën na jàngal élève sem 2 xam nga mën na jàngal élève sem 2 on est on est tombé d'accord sur ça mhm. mais jàngale boobu noonu mu mën a jàngal école élève sem 2 xam-xam bu lu mu mën a jaay la avec le digital mën nga ko former ba mu jaay loolu mhm. ça veut dire que ces étudiants là on peut les former avec les métiers du digital. ñu génnee xaalis état mën na ko def. te lu yomb la gis nga la presse en ligne là man de barke alxuraan loolu je mën ak sa baax état man j'avais j'avais euh, initié. ñu defar benn ah, plateforme. may may ma ma jeexal ma e-commerce bi de ci la ne. e-commerce bi kii ma je ma rek lay def la presse en la presse écrite là. Eh, mais pourquoi état mënul xalaat ñii. la presse écrite la nañ leen defar benn plateforme. Mhm. plateforme boo xam ne da ngay pour lire article yi. tout à fait bu ko defee la presse dina presse bi. Mhm. fekk amul xaalis. Mhm. la presse est à la merci. de ces vautours-là. mi ngoog leer na mu demee noonu. mi ngoog ñu dem rek euh, di sàkk aussi ñu euh, régulariser boobu le secteur parce que barina na li fi jot a. jàll te loolu mën na ko nit mën na ko téye ci xolam xam nga sénégalais. <laughs>